bi ñu génnee ci élection am na tey ku dem ànd ak moom su génnee naan daf ñuy attaqué te bi ñu defee élection bi ci gannaaw ëllëg sa la ne daf la sàkku daf maa bëgg a gis ñu daje fii kër euh, benn ci sama soutien yi muy kër Atepa man moom Boubacar Camara Atepa dama am ay seede mu ne il faut ñu yëngal réew mi il faut ñu génn manifester

bala ñu nan muni gars nañu déclaré qu'ils sont vainqueurs il est revenu ñu def conférence de presse conjointe bi. Mm-hmm. ñu dajewaat waxtaan ci mm-hmm. nak kon yaakaar naa ni ñoo nous vidéo bi moy comme ni ma leen koy waxee man ton Tandian je suis là pour défendre l'injustice je suis là pour défendre la manipulation je suis là pour défendre les mensonges moy vidéo bi ngeen xam te sétane ngeen ko moy ñaari version ñaari version yi kan moko wax leader du Pastef di Ousmane Sonko dégg ngeen ko bu baax lu mu njëkk wax. nee na bi élection 2019 yi jàllee ñoom ñetti candidats yi ñoo génnoon muy Macky Sall sa Seck ak kooku di Ousmane Sonko bu Pastef ñaari fan bu élection yu weesoo sa Seck moo ko woo ne ko nañu taal dëkk bi nañu yëngal dëkk bi ndaxte lii duñu ko nangu moom loolu la wax ci première version deuxième version yéen ko déggaat nee na bi élection yi paree si jour bi ñuy joxee résultat bi moom xam ngeen Ziguinchor la voté jee bu mu jógee Ziguinchor wàcc aéroport moo jël téléphone am woo Déthié Fall ne ko ana bi mu ne ko mi ngi nii mu ne ko toogaay amul ñëwal léegi sinon kii day foqati nguur bi kon ñaari wax yi ban moo ci méngoo Sénégal yi toujours maa ngi wax ak yéen mais nangu leen ma bàyyi xel nee na kële moo ko woowoon téléphone tey moom nee na moom moo wol téléphone te nee na bërki di ñaari fan bi élection yi weesoo tey nee na si jour élection yi moom moo wóor Déthié Fall mu passe ko Idrissa Seck moo tax ma ne ko toujours nañu aspiré wul kuy jiite Sénégal di wax ak Sénégal te jiite goo réew mi ngay wax lu safaanoog dëgg yow suñ la joxee réew mi pouvoir bi yëpp nekk sa kaw mu leer na que yëpp yaay décidé yow ban kàddu nga ñuy indil je crois que le vrai problème

ba investiture yi dellu si mu sentir ni que moom mii du ci bokk les la njëkk génn pour défendre Ousmane Sonko ne cadre viol bi ñu koy jindee man gëmuma pourtant ben ko koy jiiñ boobu ma nga bennoo bokk yaakaar mucc ci yëy yàb bi amoon mille plateaux pour wax ci mais waxu ci ginnaaw ba ñu investiree Benoît Sambou la la def génn naa kan laay àndal Ousmane Sonko ne lay àndal tay intérêt Casamance moko ñor intérêt sénégalais moko ñor wala intérêt personnel tu as été maire je crois que sénégalais yewulé ci politiciens yi ngi di gis tay nga xamanteni xamnañu Ousmane Sonko wujju Macky Sall la motax miski sou la maire day dem ànd ak sa coaliser ak sa wujju nañu xowat coalition yi fi am muy yewi askan bi yew askan bi amul benn coalition buñ fi mëna tabax

wala di tourner gars yi mbooloo yu topp la xale yi nga xamante ni quartier boo dem ñu amul activité topp la je crois que ku weddi na laaj Bougane Gueye Dany ba muy def investiture am fële ca stade euh, kii nu mu tudd du bari

manam ku ci amuñu programme amuñu luñu nit ñi lu wu def nañ dañ may acharnement kañ dem acharnement kañ lay je crois que est temps que nous ubbi suñuy xool bu baax kan lañuy jiital que nous suñu changement devons bëgg di changement un très bon comportement xam fan lañuy yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu